jamono ji ñu ngi koy amal uh, ca diwaanu uh, Côte d'Ivoire gannaaw ndam li ñu am ci kanamu Gambie door ko ñetti bal ci uh, dara Aliou Cissé jàpp ni fokk rek ñu dëggal ndam loolu te loolee fokk rek itam ñu am ndam ci kanamu Cameroun mi nga xam ne moom la ñu nar a dajal ni ki ajjuma gile li ñu mel Aliou Cissé daal di koy xamle gannaaw ndaje ba ñoon amal ak taskatu xibaar dañ ci ànd ak moom. l'importance mais surtout wérgu yaramu joueur ñu ngi sant yàlla récupéré nañu pratiquement majorité suñu suñu équipe bi tey def nañu point ak ak staff médical bi pour xool xëy na yenn yenn boobu yoo xam ne yenn joueurs yi contacté nañ ko à l'entraînement ou bien fin de match bi mais comme je l'ai dit gagner match début de compétition lu am solo la lu am solo la donc di si sant yàlla bu baax gagné nañu match contre Gambie bi mais xam nañ ni tamit pour que ñu mën a solidifier victoire boobu il faut impérativement tamit match bu baax yàlla may ñu ndam contre contre Cameroun donc mën naa wax ni que déjà ñu ngi dem ci match boo xam ne ma bu décisif la. alors coach euh, yow yow la dañuy match contre Maroc bi dama seetlu ne ñi nga xam ne mooy ñi la dee ku si mel ni Lamine Camara et Pape Gueye ñoom ñoo ñoom ñoo daal di dugal alors que suñu ligne attaque bi dañoo manqué de réalisme. que tey mën ngeen xaar nga indi ay changement euh, contre le Cameroun côté attaque. je pense que à partir du moment où yàlla def nañu gagné suñu premier match bi il faut pas que ñu apporter tamit changement yoo xam ne dañu mën na déstabiliser équipe bi euh, je crois que suñu expérience daf ñu war a jàngal lu bëri euh, fi ñu demoon moom moo ñu rappelé wu. te xam naa ni xel di ko mu ngi ko doon def ko ba mel di ci ginnaaw. Mhm. donc je pense que stabilité équipe lu am solo la. parfois di nga bëgg di changer mais en réalité da ngay def attention pour que justement changement boobu du tax a mën a déstabiliser sa équipe carrément. Mhm. donc euh, c'est vrai que nekkuñu ci ci ci yoon boobu. marqué ay but ay milieu de terrain yu dugal du du la xew je pense que suñu milieu yàgg nañ dugal mais ci côté équipe de football tamit loo am importance bi mooy que euh, défenseurs yi mën nañu dugal CAN gis nañ ko woon Abdou Diallo moo dugaloon milieu de terrain yi mën nañu dugal mais attaquant yi mën nañu dugal tey je crois que lu gën a importance mooy que Sénégal di gagné tey ba ñu xoolee match bu lundi bi gaa suñu attaquant yi dugaluñu mais dugal nañ kanam ñett but je crois que tey loolu moo gën a am solo que buñ amuñu effectivement benn attaquant attitré boo xam ne chaque match mën nañu am yaakaar ni que mën nañu dugal benn mais bu dee am nañ tey suñu flanc droit bi nga xam ne am na joueurs yoo xam ne mën nañ fa dugal suñu axe central bi am na ay joueurs yoo fa dugal maanaam loolu dañuy gën a indi problème adversaire bi te je crois que loolu moo gën a am solo. mu ngoog mu nekkoon Aliou Cissé kay euh, tàggat sunu gaynde ci euh, ndaje taskatu xibaar mu nekk conférence de presse avant match bi nga xam ne moom la ñuy am amal saa su ne ni ki àllëg nag ah, boo rek juróom waxtu jotee ci ngoon danañu ja nekk ak ah, Cameroun laata loolu nag ñu daal di ñëw ak yéen ci programme bi nga xam ne moo ñuy xaarandi ni ki tey Guinée équatoriale war a dajeek équipe bi di Guinée Bissau Côte d'Ivoire ah, nara daje ak Nigéria bu 17h jotee loolee nekk jongante bu nga xam ne itam ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax waaye Égypte ak Ghana ñoom it ñoom ñaar ñaar daje euh, bu euh, vingt heures jotee mën nañu wax ni nag euh, ki nga xam ne moo di dalal Coupe d'Afrique bi di Côte d'Ivoire dana jouer dana amal jongante bu am solo digganteem ak nigeria noonu itam Égypte ak Ghana loole nag nañ ko rek daal di lépp lu fa jotandi ci wàllum résultat dinañ ko dettal ci sunu jotaayu xibaar wax ci